ne dañu koo wor warante googu nag duggule ci wàllu politique euh, am nañu yàgg jàpp ni xëy na la ñu méritoo woon joxuñu leen ko loolu nag moom la ñuy waxtaanee tey dalal ci euh, Modibo Diop euh, ñu ngi lay nuyu monsieur Diop am mbégte dalal ci waxtaan wi. maa ngi lay fay Fatou di fay waa réew mi yëpp di nuyu auditeurs nga xam ne ñu ñuy ñu ñuy déglu tamit. di leen ziare. alors euh, ni ma ko waxee nag li ñuy waxtaanee tey di trahison ci politique wala warante euh, ma tàmbali ci ndax man mës ngaa dund lu mel noonu. waaw loolu moom dafay loo xam ne malheureusement Sénégal loolu dafi nekk euh, lu nit ñi di defante lu bare bare ci wàllu politique bon moo ci gën a feeñ sax am na yeneen ci wàllu liggéey comme les affaires mais politique bi moo ci gën moo ci gën a feeñ par exemple man Eh, am na deux mille eh, naa lu mat ñaari at liggéey bu baax a baax a baax pour gagner mairie Colobane Fass Gueule Tapée bon ma liggéey ko ànd ak sumay équipe liggéey ko ba gagné ko xam ne gagné nañ ko ba teg ko suñu loxo xam ne fal maire bi moom moo des pour ma jël commune bi liggéey ay nit dem seeti Ablaye Wade ne ko bon Modibo ingénieur polytechnicien la yàgg na liggéey xam na macha allah lu bari e, da nga ci da koy da nga koy def ministre ah boo ko defee ministre ñun ñu nga jox ñu maire bi ndax ñun euh, politicien la amuñu lu loolu bon man ma bañ nga leen lool loolu duma ko def parce que ñi ma àndal liggéey dañu bari bon du ma jël sama maire di ko jox ay nit daal hmm. bon biñ demee ma xam ne loolu ñu ko am ci man ci seen i pexe ñu seeti président Blaye wax ak moom xam nga rek politique foofu la trahison commencé sama ay noon ñoo dem ndekete wax ak moom ne ko wéy xam nga nangam nangam par exemple laay convoqué ma convoqué leen ñoom ñëpp ñu def waxtaan bu tàng jër premier jour bi ñu <laughs> waxtaan ma ne leen ma ko Abdoulaye ma ma ko def jàppanteeg ñoom ci kanamu président eh, am ndeysaan ku baax Léna Fall Diagne yàlla na ko yàlla yërëm moom ci boppam mu ngi ci biir waxtaan bi ak yeneen personnalité ah du team euh, nu mu tuddati eh, Doudouwaat mu nga foon eh, ñoom Babacar Gueye ñu bari daal. Mm-hmm. ak ki nga xam ne nee na moo bëgg maire nga xam ne ñun ñoo dëkkoon. ñoom ñëpp ñu nga foon ñu wax benn suñu benn jigéen la bu ñu naan seen waat. Mm-hmm. moom suñu dëkkandoo la Colobane. ñu jàppante jàppante bu tàng jël ci seen kanam ma yekk leen lu nekk xam nga nag man bu xuloo da damay xuloo. Mm-hmm. Abdoulaye da ngi toog. Euh, waxul dara mais après mu xam ne maa ne ci dëgg. Leela hmm. Fane Ndiaye xam ne waxtaan wi du sotti mu ne président Ablaye Wade bon xam naa ne xale yi fi ñu toll nii eh, jubale leen du yomb ndax kii eh, nee na maire yi moo ko gañee te muy dëgg du ko joxe bañ na ko joxe kële eh, bëgg na ko mais kii du ko ko jox ndax xam na ne yeyowu ko hmm. bon Ablaye Wade ne kon nañu bàyyi ba suba ba subaa ñu toogaat gisee. ñu dem fa mu ne leena leena ne bu ñu fanaanee peut-être bu xel yi dina dellusiwaat bu ko defee ñu seet li gën a rafet rek ñu def ko ndeysaan jigéen bu baax waaye yàlla na ko yàlla yërëm amiin amiin loolu li ko xéewal ci àdduna génn na àdduna jamono yële mm-hmm. faatu ñu fanaanaat bu suba président waat ma ne man na ngeen ñëw tey ñu ñëw ñu tegaat ay nit wax ci bari bari bari man ma toog fi toog rek jàpp fi nga jàpp Ablaye dafa mën affaire moom naanaan la mm. mu demee ba xam ne affaire bi dëgër na nag mu ne ma nag bi yoon damay sa papa buy ñaan doom la hmm. nangam laa bëggoon nga def ko nangam nga def ko nangam nga def ko ndax maak yow am na lu ñu war a wax hmm. mu waxee lool rek ma xam ne bu ñu defee loolu bu ma nangoo loolu dina am loo xam ne moom dina ma ko jox moom laay da ngay xam ay junjëm waaw ñu ma ne ma ne ma ne d'accord na mais su condition bële ma bàyyi mairie bi Abdoulaye ñu d' accord pour mu def ma ministre. dugal ma ci gouvernement bi nga xam ne moo waroon am boo xoolee élection yi mars deux mille neuf la gouvernement premier gouvernement bi ñu def avant fête avril quatre kii de kii avril gouvernement boobu xam ne d' accord nañu ba am naa poste bu may jël waxtaan nañ ci ba rek la leen. mais ci biir loolu trahison fa la tàmbalee parce que eh, ñi nga xam ne ñoom laa doon xëccoon amul benn bu tooñ ay noon yi ma amoon bëri woon nañ ci gouvernement parce que ni ma nekkee woon amoon doole ci parti bi. Mhm. ci ci temps bu moo leen dérangé woon. E, ñoom ñu jaaraat ci suuf dem monté benn trahison ci Ablaye Wade Ablaye dugaluma ci gouvernement boobu. ban trahison ban ban trahison lañ monté. non ku ñu di cité ci gouvernement ba ñëpp d' accord di nga dugg. Mhm. ba Karim Wade sax d' accord ne parce que Baye moo ko wax. ba ma xam poste bi may dugg ñu définir ko ba pare. ban poste lañ la dencaloon. bo boobu sax nit ñi dañuy jàppoon ne énergie laa doon dem. Mm. mais ñoom mine lañ ma prévoir. mine. waaw waaw mine lañ ma prévoir. mais am na ñoo xam dañ jàppoon ne. Mm. énergie laa doon dem ndax li ma nekkoon directeur général benn société énergie. ASER. ah ASER ak li ma jóge woon rek aussi mm. nekk ingénieur et tout donc dañ jàppoon ne énergie laa xam Sénégal nit ñi dañuy xalaat xalaat yoo xam ne doo xam buñ ko jëlee. Mm-hmm. mais Ablaye la ma bëggoon yóbbu parce que mine aussi bokk na samay métier mhm. ba tey ma wax yow damay liggéey dans les mines ok donc euh, ñu dem nag monter benn affaire wax fa sos fa moon xam nga rek sa politique dafa bëri sos mhm. war fa la tàmbalee xam nga fen moom trahison boo gis ci fen lay tàmbalee mhm. di bu wax na diw def na ñi ma noonu woon nag xaw xawoon na bari nag te jege président boobu yaa ngi yor Azer boobu maa ngi nekk directeur général avril li may wax nii mars deux mille ñu dem fenn fenn wax Ablaye Ablaye tamit xam nga moom dafa gaaw a génn ci mbir. Hmm. Euh, avant ñuy monter gouvernement bi directeur de cabinet président bi nga xam moo yoroon affaire directeur de cabinet wax bi nga xam moo moo moo moo defe naa Zakaria la woon on na ma ba ñu waxtaan nga xam ne miin donc kale nañ ko ba pare ma toog di xaar fa ba ñu monter gouvernement ba teg dégguma sama tur. te noonu nga ko nga ci toll. noonu laa ci toll war bu toll noonu mosuma ko gis. président Wade woowu la sa waxtaan ak yow. waxuma dara ñoom waxuñu ma dara mais bi ñuy dugg di génn dama koy yëg. Hmm. oh miin kale woon nañ ko ba pare mais ñu yéeg wàcc yéeg wàcc ba président tudduma bi gouvernement boobu af ma ne ah sama gars yi nag ñoom lii deneen la waaye fii lañ may fekk. kon euh, métteel métteel boobu noo ko dundee. non dama xam ne loolu dama ci préparé wu parce que xam naa ne politique ak loolu an xam naa ñi may hmm. jàmmaar lool tamit pexe yu nekk dañ ci nekk. xam xam nga PDS man. kon yaa ngi doon xaar loolu. bàyyi woon naa ci xel. ndaxte boobu dérangé naa leen boobu kan moo fi nekk Pape Diop moo fi nekk nekk maire Dakar ñu bokk benn commune ma sonal ko ëpp ko doole ku jigéen ki ma jox poste moom taxut wax moom amul ñaari nit fu mu dëkk yaa ngi mhm. nekkoon Samuel Sarr nekk sama xarit sama wëllëre ñu bokk ñu bokk Serigne Sali mais dox nañu suñu diggante ci yàq yoo xam ne xam nga boo amee ministre Badou mu yaakaar ne palaasam ngay ñëw jël si. voilà muy sa xarit ngeen di liggéey ngeen jubboo boo dem Touba da ngeen di ànd jël oto demandoo Touba xam nga ni ma la. Mhm. ngeen bokk benn sëriñ xam nga kooku am na loo xam ne xaju fa. mais dañuy yàq yàq diggante bi ba moom mujj mu ragal jàpp ne place am laay jël pourtant toog nañu waxtaan ma ne ko non yow tey mon frère Samuel li ñu bokk dafa bari moo ko doole lii. Mhm. mais xelam du dal ndax boo génnee euh, dem keneen ñëw ne ko non sa di la lay waajal. <laughs> <laughs> moom day tiit. ndeysaan day tiit ba du xam lu muy def mais moom sax bo euh, bokk na ci affaire mais nekkul woon koo xam ne ci yéene la ci demee. Euh, dañ ñu jaxase. Hmm. mais ña ca des ku mel ne ay ay ay ay ay ay ay ay Pape ñeneen ñi am na njëriñ ñu bari woon ah. Hmm. Euh, dañu dañu ñoom ñoom pour ma yéeg politiquement moom neexu leen woon parce que dafa leen di déranger bu ma yéegee. ok léegi nag ginnaaw loolu itam waxoo ci ak président Wade benn yoon. ah kay waxtaan nañu mais xam na président Wade yooyu. xam nga président yooyu lu ñu ñoom ñoom ñoom seen lay dafa yomb. ah oui président Wade day wax da lay wax leneen. da lay da lay sànniwaat ci leneen. yow yow fu mu la sànni woon ci la la la sànni woon. non yow xam nga Wade dafa doon mag am xel xam fu muy jaar nit ñi Wade dafa xam Sénégal. boo ñëwee dina la dina am lu mu la wax gërëm la wax la ne jàmbaar nga boo moytul sax mu yëkkati lu mu la jàppalee loo xam ne koppar la pour nga pour nga pour dalal sa xel. Hmm. sànni na ci yeneen bagage yoo xam ne lay wër ne kii li mu wax génn ci àgg. waaye ba tey la sànni wër de. non da lay sànni ci beneen enjeu. mais junj la benn yoon genre dañu yàq xelam ci yow ak yooyu. non dina dina du la wax loolu. d'accord loolu du la ko wax. du la ko wax parce que bu day ragal mu wax na ko nga dem wax ko ña nga xam ne ñoom ñoom ñoo ko defoon surtout ñam ñi ñoo xam ne dañ ko jege ñi ay mbokkam la ñu ko mel dugaat mbokkam la hmm. jarbaatam la du du la ko wax nga xam xam ne nag ñooñu ñoo def affaire bi. ok yow nag nga leen di xaar mais yow li am suñu lekk mooy ñàkk nga ñàkk nga ñàkk nga place boobu ñu hmm. loolu xam nga trahison gënu ko rëy daal. waaw te loolu dafa bëri ci politique ah, kilifa yuy wax dara. Hmm. loo xam ne dafay am solo dem ba ci biir ñu raxasu ci. Hmm. ba set ci wécc xam nga loolu moo tax moo tax leen di yomb. ndax seen biir rek dañuy defante bu ko nit nekk la livre ah oui ay ay junniy livre la plutôt <laughs> <laughs> alors loolu tey euh, dañu ko indiwaat muy traison ci wàllu politique wala warante ndax euh, jamono ji ñu toll ni ma ko junjee sànq ci ndorteelu waxtaan bi allié yu bari ci mm. biir Benno Bokk Yaakaar ñi ngi jàpp ne président daf leen war ki ci gën a mm. fës di Abdoulaye Baldé am na mm-hmm. ñeneen ci biir APR itam ñu jàpp ne xëy na la ñu waroon ak euh, la ñu warloo woon ak ñoom joxuñu leen ko muy tabb leen tête de liste ñenn ñi sax ñi ngi défier mm. fas yéene dem ak yeneen list ci yeneen bannière ngir jëm ci local yooyu fii ni tey situation bi présenté wu yow noo ko jàngatee daanaka nekkatoo ci langue politique bi fësatoo ci mais nekkoon nga ci donc situation yoo mun a décortiquer. non maa ngi ci bëri Fatou. Oh, ba tey maa ngi ci maa ngi koy dund ak sam ak. ak mais la sur le terrain. ah maa ngi sur le terrain mais man maa nekkatul di wax du ne ma dugg ci parce que dama naan am na ñoo xam ne ñoo gën a féete ndaw ñoom ñoo ñooy yore loolu. d'accord. ba tey liggéey sama commune. parce que mhm. liggéey commune commune yi nga dëkk moom mënoo ko bàyyi. Mhm. bon et puis maa ngi aussi dans benn bokk yaakaar bi jàppale aussi président lu ma man loolu moom maa ngi ci mhm. euh, li ci xew ñu def ci am ñi ci ëpp bu dee téeméer juróom ñetti fukki mënuñu ko loolu mooy wax ji hmm. ku yeewu rek na damaa bëgg nekk tête de ku yeewu rek ne damaa bëgg nekk maire foofu la foofu la toll du léegi de loolu yàgg na de ba jamonoy Senghor ba tey da gis benn nit day dëkk fenn dugg ñaar ñaari fan jaar fi ñëw fii kenn xamu ko dugg génn daal di joxe fii ay teraanga joxe fële dem dëj bi dem gént bi yeewu rek ne ma ëpp doole maire bi dafa bëgg nekk maire <laughs> lii moo ëpp di gis nañuy laaj tëddali si yëpp ah. quatre vingt pour cent boo leen joxoon école boo xam ne école lu sixième ñuy wote ci école ba ci biir école ba ñuy jàngale élèves yi duñu duñu leen wote <laughs> mënuñu gagné école élémentaire benn hmm. ñaareel bi te am ñoo xam ne dañuy nekk ci politique nekk ci nekk ci duñu bëgg a dem duñu bëgg a dem nekk maire wala directeur wala duñu bëgg a dem ñu xam ne dina toll jamono boo xam ne hmm. lii ngay xëccoo jaratu ko util leneen hmm. man loolu laa def ren parce que dama ne ñi ma àndal eh, man bëggatuma nekk maire parce que gañe naa maire yi kon nekkoon naa maire du dëgg hmm. eh, deux mille dix deux mille vingt trois bi deux mille vingt deux bi bëgguma nekk maire parce que hmm. loo xam ne gagné woon nga ko fukki at ak ñaar ba hmm. ñett ca gannaaw Sénégal yëpp xam yaa ko liggéey est-ce que loolu dagan na jaarul nga ñëwaat di ko xëccoowaat loolu ci mbaadoo loolu bokk defe naa yow kay am na foo toog encadré jeunes yi ak moyen jeunes yi nga seet ñi ci tane président aussi seet ki muy tànn ngeen seet ngeen jiital ngeen liggéey mais man buggatuma nekk lool li ma bëgg rek mooy ñi ma àndal ci wàllu politique mhm. ñu dugg ci conseil municipal bi nekk ci ñoom liggéey ndax ay jigéen lañu ay xale lañu yàgg nañu sonn ci commune bi ñoo ñooñu nañu dugg ci conseil municipal bi liggéey ak maire bi fi nekk mais maire lu fi nekk aussi ñu téye ko ba nga xam ne du def lu ko neex du nekk buur di bummi mhm. ñu ci bari nag bu ñu def loolu dañuy yàgg ci maire yi ba nga xam ne jàpp nañu bu ñu génnee ci maire rek dañoo war a dem barsax bu <laughs> ñu toogee du ñu jóg. duñ jóg loolu tamit xale yi ka xam ne ñoo topp ci ginnaaw tamit wax dëgg yàlla dañu mujj sonn loolu lay ñu naan dañ leen trahir wala leen fii wala lii ñaari raisons. yi rek kaaw Ablaye Balde par exemple noon nga ko jàngatee. déedéet déedéet Ablaye Balde c'est un homme politique de valeur. ok moom parce que man euh, suma rakk la xam naa ko bu baax gagné si Ziguinchor ba mu koy gagné suñu jamono boobu yombul woon. bu yombul woon booy seetlu defe naa dama yaakaar mais bu ma jàpp defe naa depuis 2009 la ko gagné. Mm. mooy élection yi ma doon nettali nii. Mm-hmm. boobu yombul boobu ab boobu euh, PDS dafa ñàkk pratiquement maire yu bari ci Sénégal ni mu mm-hmm. ñàkkee Dakar nga xam ne Dakar man rek maa gagné woon fii. Mm-hmm. noonu la Ablaye amee woon doole doole doole doole Ziguinchor. maintenant nag man xaw ma lu mu waxante ak président vraiment xaw ma ko parce que jotuma ko téléphone waxuma ak moom. li mu wax génn wax rek laa gis. te gisuma aussi président lu mu tontu wala ay nitam. Hmm. mais li Ablaye génn wax rek laa gis moom moo tax jàngatewu ma ko noonu peut-être bu ma déglu woon na président wax ak moom ci loolu ah, dinaa xam ñoom ñaar nu ñu demee nit nag am na benn journal bu ne ñoom ñaar waxtaan nañu def ko ne woon na bàyyi bu bàyyee mu jox ko beneen institution. Hmm. mais man tey man personnellement man mënoon Ablaye tey man. Hmm. bu fekkoon man dama waxtaan a moom tax sama sama nit la nit ku baax la Ablaye. Mhm. dinaa ko ne bàyyil maire yi Ziguinchor bi parce que bi nga ko yoree ba tey doy na. Hmm. nga uti leneen acteur politique nga ñëpp xam nañu sa doole Ziguinchor mais dafa jot nga bàyyi ko ndax doy na fi mu nekk nii. waaye yow yow defoon nga loolu. ñu ñu ñu nax la. ci la dernière minute mi ngi dépend mi ngi dépend nag ci parolu chef d' état bi. chef d' état yi loolu loolu seen problème la. ok. ñoom du du du du Ablaye Wade ñoom ñëpp loolu seen problème la il faut ñuy bàyyi xel na bu ñu waxee nit dara. Mhm. buy bu doon taw. bu doon ngelaw bu mhm. doon xiij bu doon naaj seen kàddu nañ ko téye ndax foofu lañ leen di respecté mhm. waaw waaw waaw rëy na rëy boo xam ne war na di moytu jël karol kàddoom di ko teg ci loo xam ne ci ndox di ko bind ci ndox ci xeer la ko war a bind ah, Sénégal léegi wax waxeet moo fiy dox noonu ah, lu daaneel Ablaye Wade. Mhm. kilifa gu toll ni maam lu mat juróom ñett nga taxaw ne wax naa waxee bokk fi ngay fekk Sénégalais di nga xam ne ñoom ñoom du ay dof donc chef chef d'état yi du Sénégal ah, àdduna bi yëpp boo doon dem ci sous région bi sax ay Guinée yooyu ay dangay ay da lay jàpp foofu lu gën a grave mhm. ñii sax am na ñuy xaw ragal tuuti moom ne dañu war a bàyyi xel ne li ngay wax doomu aadama ku mën ci doon la nga koy wax na nga fexe ba nga sàmm waxuma Abdoulaye Wade rek ñoom ñëpp laa wax ba génnuma ci kenn mhm. ca Senghor ba tey parce que koo xam ne ñëpp dañ la yaakaar mhm. yàlla jël nguuram jox la ndax chef d'état yàlla moo lay fan da ngay dégg alxuraan ne ko di allahumma malikal mulk mhm. tuuti mulkahu man tashaa'u wa la jox nguuram gu wér a wér a wér goo xam ne du ay caaxaan nguur du caaxaan ne sëñ bi bu la joxee loolu sa kaddu da ko war a sàmm parce que sa kàddu boo ko sàmmul da ngay yàq lu baree baree baree bare te loolu ax lay doon di nga ko teg mbooloo wala nga teg ko nit wala nga teg ko nation loolu du la jik loolu baax ñëwaat ci kaawu Ablaye Balde est-ce que du loolu la ragal moo tax euh, dégluwul benn proposition moom mu xool li mu xool rek. franchement xaw ma na la. Hmm. mais xam naa ni acteur politique majeur la du xale. Hmm. xam na li muy def. d'accord moom li mu war a seq ak président moom mën na ko gérer boppam. d'accord loolu laa man waxtaan ma moom gëj naa ko dégg. Mm-hmm. mais moo ko déggoon man dinaa ko ne du ma xaar sax ñu may wax bàyyil maire bi dinaa ne damay bàyyi maire bi lan lay am. Mm-hmm. parce que daf dafa yàgg aussi il faut le dire. te te contexte politique sol changé na dañoo ànd dëgg. dëgg la am na xale yu ñëw sur la scène politique benn. Mm-hmm. deuxièmement am na un concurrent de taille nationale parce que mm-hmm. euh, Ousmane Sonko. Mm-hmm. bu nekkee troisième ci liste nationale liste euh, compétition présidentielle. Hmm? Mm-hmm. bu wàccee nekk candidat ci benn mairie du yomb de. waaw leer na. parce que fi mu toll la troisième national la. loolu nga bëgg ko nga bañ ko nga ànd ak moom nga bañ ak moom loolu moo am. mun na nekk en face ak ay ay nit ñoo xam ne bi ñu ñëwee ci politique yàggul trop kenn xamu leen trop. ah candidature boobu du yomb kon yow bu la fa fekkee yow ancien maire sa toogaay du neex. Mhm. nga génnoon uti leneen pour man moo doon gën ci moom. bu ma ko doon conseil man loolu laa. waaw waaw bi nga wax moom jaarul. Mhm. ak président ba ba yegg si ci loolu xaw ma ko parce que man man gisuguma ko gisuma mhm. jot parce que contexte bu bees moo xew Ziguinchor. alors ci ngir des ci tey ba tey ci élection yooyu euh, locales yi ñu dëkkmal euh, président Macky Sall ni mu defee investiture yi ci biir euh, Benno yow noo ko jàngatee ndax ñu bari jàpp nañu ne xëy na yenn alliés yi joxuñu leen seen cër wala ñeneen yi ñu ngi leen di jéewan neewal eh, doole yooyu gis nga nag Fatou hmm. investiture moom hmm. amu benn boy génn ñëpp jàmm am coow lay àndal <laughs> loolu moom mënoo ko am seetal histoire Sénégal ba mu nekkee démocratie ba tey hmm. ndax li ma la wax da ngay gis ñoo xam ne matuñu matuñu mboote ñu bëgg ñu ne aw nag lañu. Hmm. Ah, loolu la bëri ci politique de. <laughs> gis nga gis nga le le crapaud la et la boobu Fable La Fontaine. Mm-hmm. moo bëri ci politique koo xam ne matul matul matul mbott ñu ne waa ah, yow ne pëf rek <laughs> Fable boobu Fatou na nga ko liiraat noonu la demee daf ci bëri ci loolu. nga sa xilaaf. waaw surtout surtout léegi mais amul benn investiture. boo xam ne mën nga ko jël te du am coow maintenant nag mën nga jàngat investisseurs yi quartier par quartier commune par commune département par département. d'accord nga ko jàngat ne ah lii ko def man analyse boobu man dama koy def yenn saa ma dégg département tàngam diw sàngam génn na. Mhm. ma ne ah kooku de mënoon nañ ko bàyyi foofu. Mhm. gérer lii mais président yi aussi dañuy am information yi xam ne ñun duñ ko am. waaw. waaw ndax dañuy am ay sondage man dama gis Ablaye Wade Ablaye dafa daan sondé Dakar tout le temps. Hmm. saa yu sondé Dakar man maay man maay man maay premier devant les autres. ok mais dinaa ko xam parce que moom dina fexe ba xam loo ma ko xam Ablaye dafay daanaan. Hmm. dina fexe ba nit koo xam ne sondage bi ci loxoom la jaar ñëw ne ma attention lii dañu génne donc président aussi dañu am ay sondage d'accord benn dinañ am sondage wax nañ président commandité na 166. du ma ne déet. ndax moom ah président bi ancien ministre de l' la. Hmm. ancien ah, ah, dafa ay rôle yu bëri au niveau de PDS nekkoon na fi ministre de l' nekkoon na fi premier ministre jege ne woon na Ablaye Wade kon ba ngay xam ne li Ablaye daan def da koy xam kon moom am na ay techniquem yu bees yoo xam ne sax léegi lay gën a xarañ nga léegi avec nouvelle technologie xam nga technique moo gën a xarañ léegi. Hmm. voilà bon bu ko defee eh, du ma ne déet loolu ñoom dañ koy def ba pare am nañ tamit seen police politique bul fàtte loolu. dañu am seen renseignement généraux yoo xam ne ñoom politique rek la ñu xool. Hmm. dañu efficace. dañuy wax diw diw diw diw diw diw diw yooyu yëpp boo ko recoupé. Hmm. di nga génne di nga génne ay nit. mais yenn saa aussi day am yoo xam ne da nga ko génne mën nga si mën nga ci juum. Hmm. mën nga ci juum malgré tout sax man nga ci juum. mooy ñuy rectifier di ko rectifier waat yooyu yëpp mën naa mais coow moom mënul ñàkk ci élection locale. maa la ko wax du jóg moom. ragaloo liste parallèle yi. ak vote sanction yi. ci élection yi moom moom baaxul ci baaxul ci parti au pouvoir. Mm. parce que lu tax Fatou Mak yow ñun ñoo bokk am ay taalibe téeméer lañu. Mm-hmm. nga mer yóbbu yóbbu juróom fukk ma juróom benn fukk ma mer yóbbu ñeent fukk. Mm-hmm. ñun suñu taalibe yokku te ku ne dem rag dara di. dëgg la <laughs> wala de. ak ñiy banque seen loxo def vote sanction. waaw liste parallèle moom amul njëriñ ci parti. Mm. parce que doo andi ku bees. la nga xam ne moom la parti waroon am. moom ngeen di jël séddoo ko ku nekk dem kon ka nga xam ne moo jiitu moom ngeen di néewal doole bu ko defee opposition buy góorgóorloo tuuti rek. jëlee leen ci yéen ñaar ñoom ngeen ñàkk. Hmm. ndax yow ma def liste parallèle ba dina gañe dina la jafe lool. Hmm. seetlu rek bu ñu wanee Sénégal fii yëpp ñuy def liste parallèle pour ñu am dara du yomb. waaw ndax yóbbuwoo doole ji yëpp tuuti rek nga yóbbuwoo doole ji benn pour nga gañe du ka nga xam ne nag moom nga àndaloon tamit wàññi nga la mu yore. waaw opposition bu ñu organiser wu tuuti rek yéen sànni leen ci biti. yéen ñëppay ñàkk. yéen ñëppay ñàkk ndax yow amuloo doole gañe waaye moom it amul doole gañe yéen kon yéen a bokk affaire mhm. kon liste parallèle moom baaxul baaxul ci ci ci ci ci ci élection surtout ci gox quoi nga xam ne militants yi duñu bari trop mhm. te ñëpp dañuy xamante daal mhm. mais est-ce que gënul woon peut-être kon euh, surtout parti au pouvoir yi di anticiper ci situation yu mel noonu ndax euh, APR gi nga xam ni euh, tey moo fi nekk gis nañu défiance yi ñu bari tey wane nañu ñi ko wanewul junj nañu ko ne ñoom dañuy dem ci élection yi ndax ànduñu ci tànneefu président Macky Sall est-ce que amul moyen yoo xam ni yaakaar nga ni mun nañu ko anticiper ba xëy na convaincre nit ñi balaa dara xew wala ñooñu rek ñooy tëx ñoom ni dañuy dem no mooy ba moyen du ci am parce que amu tamit euh, mi ngi dépendre seen rapport ak président bi. mu hmm. ngi dépendre seen rapport ak seen seen seen gox. Euh, ñoom ki nga xam ne moo nekk à la tête rek la mën a wax joxe ndigal ne buñ ko def. Hmm. ça dépend buñ ko fonkee respecté buñ ko fonkul duñ ko sax faale. loolu mooy gën a mooy ëpp li mooy li ëpp. Hmm. wa am beneen arme aussi lay am tuuti caution caution bi. am nooy defee caution bi nit mën na dem liste parallèle mais du am xaalis bu ko bu ko defee. waaye fii ñu fi def liste liste parallèle yëpp daanaka ñoom ñu ngi ci biir. Euh, waaw fay nañu ko si wala ñoom làqatuñu ci beneen coalition dañu ñu ëpp duñu fay de dañu làqatuñu ku fay ba pare. d'accord nga xam da gis benn waay day nekk tey euh, PDS. Uh-huh. ñu mere ko mu def liste parallèle dem nekk APR na APR am na caution <laughs> moom amul caution. loolu xam nga lool la aussi boo ko xoolee loolu aussi eh, ba daanaam weddi say principe la quoi. Mm. mënuma tey di ne Abdoulaye Wade moo fi gën. tey tey tey suba ma taxaw ne moo fi gën a bon xam nga loolu si loolu tamit xeetu trahison la pour man boo gisee ah. est-ce que yaakaaroon itam gars yi tey dañu nekk di waajal xëy na euh, président Macky Sall euh, ni dafay jeexal ndax contexte bi tamit mooy. fin de loolu tamit ah. loolu tamit am loolu kenn tudd ko mais xam nga ne on va vers l'élection présidentielle en deux vingt-quatre bon. kenn xamoo fu ñu jëm xam nga élection présidentielle moom kenn mun mhm. fi nekk aussi am ay ndombo tànk am ay yi am dañuy jàpp ne bu ñu nekkee mais fi mënti ñëwee dinañ fi bàyyi fekk demewul noonu hmm. ndaxte Ablaye bi fi ñëwee toog maire bi Pape Diouf ab Diouf fekkoon dafa def délégation spéciale jëf leen député fal moom am na pexe <laughs> waaw délégation spéciale mooy pexe président bu bees mhm. ñoom dañuy jàpp ne am nañu ci bari dañ naan moo Macky du présenté wu dina présenté waxagul dara waaye ñoom nañu téye ndomba tànk mbooloo moo xam ne mhm. ëllëg ñoom ku fi ñëw di leen bàyyi xel mhm. fekk demewul noonu tey jii mën nga nekk benn maire di ngànd ngàndul Ablaye ñëw jubóol ak moom mu def délégation spéciale ñëf la ci biti ñoom xam Ablaye def na ko ba tey bi mu toogee rek dafa def ay délégation spéciale yu bari maire yi nga xam ne nangu ñoon jébbalu ci moom mu ñëf leen ci biti mhm. ñoom ñoom du ñu bàyyi xel loolu dañuy jàpp ne rek am nañu doole nañu toogaat tuuti bu président toogaatee xayrun bu toogaatul it président bu fi ñëw dina leen bàyyi xel ak yooyu mm-hmm. loolu moo ñu bari loolu tax ñu koy def de du leneen. Mm-hmm. alors ngir dellu démb li la daloon ca euh, ba nga gañee mairie ba mujjee koo bàyyeek Seynabou Wade euh, eh? yaakaaroo ni xëy na coppite bi am tey nga xam ni euh, maire bi dañ koy fal justement au suffrage universel comme président de la république jàpp nga ne eh? lii kon lu baax la non dafa baax man sax personnellement dama ci dama ci combat boobu dama ko dama dama ko dama ko xeex man au niveau médiatique au niveau des populations ak au au niveau politique pour joxe sama exemple man du ma ne maa ko def mais bokk naa ci ñi nga xam ne exemple bi gën a wér pour bu dugg ci loolu pour ñu changer loi boobu nga xam ne le maire va au suffrage universel boo seetloo bind naa ci lu baree baree boo xoolee internet boo gisee suffrage universel moo di ba jóob rek suffrage maire di nga ci gis ni ma ci bind dem naa ci ay jabaa yu bari pour expliquer que loolu baaxul parce que lu tax mu bon mooy loolu mooy trahison li trahison population mooy loolu mooy population gis ne faatu la ñu war a jox benn maire yi muy dem ci ñoom di leen dimbali di jël dërëm ak ñaar dërëm bokk ak ñoom ak duubalam hmm. taxaw seeni yitte ñu ne ah kii de bu nekkee maire bu ñu fàtte ndax ñu soxla nañu ku ñu defaral suñu tali suñu oto yi si soxla ku si jàngale suñu doom yeeg yooyu hmm. mu dem bay ñooñu yaakaar boobu taxaw ci population yi nga génne ko foofu moom dugal keneen kooku détournement de vote la hmm. wala de kon booba askan wi lañu doon trahir boobu nag boobu nag politiciens yi trahir nañu askanu à la base parce que kañuy jox man fi ma nekkoon kañu jox kooku amul ñaari nit ba mu ñoom benn jàngul. mais yow yaa def lépp. waaw man maa moom demul campagne sax. li mu def mooy làqatu ji ci liste làqatu ji ci liste ma bi noonu la ñuy def liste boobu da lay wóor ne boo nekkee parti au pouvoir lu mu néew néew di nga di hmm. la ñuy def dañ daan def bu njëkk dañuy dem làqatu liste proportionnelle bi. waa ji baatu campagne bu paree nag ñoom ñu def atani pexe dañuy boole pexe zaahir ak baatin pexe zaahir mooy mooy dem ci président bi toj boppam. Hmm. pexe baatin nag mooy uti ay sëriñ. Hmm? la élection locale yi ci la sëriñ seen affaire ci lay baaxe nga ni. garabu garabu àdduna yëpp ñu Sénégal fu mu nekk. <laughs> loo ci mën a loo ñu mun a nettali comme anecdote si si wàll parce que loolu moom ñun xamuñu ñun yaakaaroon nañ ne xeex ko sama permanence sama permanence politique bi ma amoon Colobane. Hmm. fekk fa fekk fa fekk fa ay ay ay bagages yoo xam ne yooyu la. bagages yi lan. ay ay ay ay ay ay nag. Hmm? ay ay ay bopp xara ay tànku gëléema lu ne nga fay fekk <laughs> danga naan lii ko saa yoo xëyee booba ñu ngi dëgmal local yi waaw boobu ñu ngi jëmal local dëgmal ñu ngi dëgmal bi ma gañee loolu rek ba pare ma leen dégg nag ni ñuy def yenn saa yi xam nga Sénégal boo fi boo fi nekkee amay mbokk da ngay yëg lépp mhm. yenn ma dégg ne ah dem nañu béréb sàngam gis nañu pël sàngam gis nañu joola <laughs> sàngam def nañ mhm. la nañ la nañu fii rey nañu nag bu ñuul pour yow fii rek nañu gëléem <laughs> ci koy def maa leen di gis xam naa maa leen dégg yenn saa ma dégg dem nañu bene bene. bene. waaw waaw dem benn garabu garabu waaw mission dañuy dem jógee fii rek mission assemblée buñ demee dox seen soxla yooyu bene gars yi xërëm lañ nekkee ci réew mi bu metti bu bon moo tax réew mi yàlla nañu yàlla defal sutura mi a yàqu yaa ngi may dégg waaw maa ngi lay dégg man kay. politiciens yi xërëm bu bon nañu nekk ci réew mi. dafa mel lu ñu ay jullit. Hmm? loolu nag loolu nag nekkul luy luy lu ñu nit ñëpp di gis mais loolu moo ci ëpp. Hmm. moo ci ëpp boo gisee élection locale yi sëriñu Mali ñëpp ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi ci dëkk bi lool rek la ñuy dox. duñu duñu lañ leen dinañ dem ci sëriñu alxuraan yi mais du bari. Hmm. ci garabu garabu yi la nekk borom gaa yu bizarre yoo nga xam dañuy dañu rey ay mbaam xuux lu ne la ñuy def. yow da nga jàpp ne li la xañ euh, mairie ba wala li la jaxasee président yooyu am na ci wàll. non xam nga xam nga du ma loolu loolu du mën a ñàkk du ci mën a ñàkk parce que xam nga aussi nit moom nit moom nit la rek euh, sëgam yonent yi la ay ay ay ay ay liggéey di jàpp waxatuma mm. waxatuma laax njabar di jàpp waxatuma laax doomu aadama ndax bi yonent bi alayhi salaam biñ koy wax falaxeek naa si njabara ko jàpp wala déet waaw kon ñun nga xam doomu aadama di ñu nitu ay nitu neen lañu taxuñu wax mais xam naa ne ñoom boobu nekk nañ ci nekk boo xam ndax bés bu nekk ma dégg ne ñoom dem nañu béréb sàngam hmm. wala dem nañ ci sëriñ sàngam wala wax nañoo ak sëriñ sàngam bés bu nekk ndax ñi ma ñi may àndal bari nañu bari boo xam ne dañ leen di infiltrer ñoom la ñuy wax ak la ñuy def man danaa ko yëgaat d'accord ma lay wax benn bés dafa am benn guddi boo xam ne. Mhm. dama toog ba saaga rek du ma tudd tur ñu ne ma diw de këram bi ñu fay suul benn benn benn benn béy boo xam ne yow sa tur lañ koy suulaale. Hmm? ki ma ko wax moom ñoo ma jëlloo mi ngi leen di dekk ci guddi mu oo ma digg guddi gi wax ma ne ah grand jógal de man de diw sàngam jarul tudd tur mi ngi suul këram biir këram mi ngi suul béy waaye mi ngi tudd sa tur di ko suul ba nga xam ne ñun sax man damaa tiit maa ngi maa ngi toog sama di ko seetaan. Hmm? yooyu rek dañuy def yooyu rek ah du deggoon nga fi ab Ablaye bopp taxaw di boppam ne diw rey na kuune yaa ko dégg bi waa kon élection yi lan mooy enjeu bi xanaa dafa am lu ci ne te ñun xamuñu ko. enjeu bi mooy maire yi amul xaalis maire yi cinq cent mille lañ leen di fay. Hmm. ay trois cent mille kon xam nga kon maire amul xaalis. waaw bi mooy budget bi ñuy yore. Ah. ak honneur bi ñuy am nekk maire. d'accord ak tappale yi ñu nekk ci biir maire gis nga maire yi. Hmm. man boo doon président Macky Sall six mois yi ne ma audité leen. yan genre tappale moo fam dafa bari ay jaxase. jaay kantin sàcc sàcc sàcc sàcc. mbirum suuf moom eh, juuti yi. Hmm. jaay ay place ñorul jaay. maire yi dafa bari tappale ah. ak i terrain ak i teera ga seetlu naa ne maire yi inspection générale d'état bi état bi duñu dul inspecter maire yi mais gis nga maire yi hmm. il faut ñu leen di inspecter tappale yi ëpp ci àdduna ci Sénégal ci maire yi lañ koy defe hmm. jaay terrain jàmbur génn terrain jàmbur jaay cantine fekk benn foo xam ne kenn fu këru faa taxaw nga jaay tagga fa cantine bu rëy jaay ko tax juuti yi ngay gis nii hmm. ci juuti rek ci bari fële ci la nekk maire yi moom dama lay wax faatu ku nekk président bëgg a liggéey sam réew il faut mm. nga seet maire yi maire yi dafa bari ay tappale mm-hmm. loolu nag ñoom loolu la ñuy xam moo tax da nga gis koo xam ne bu muy bu muy ñëw ci maire amul kër amul oto amul dara bu fa defee ñetti fan da nga gis ko mu tàmbalee fonto nit ñi yore salaire u trois cent mille ak cinq cent mille moom loolu mooy seen salaire de personnalité wala wala waaw politique loolu la ñuy gagné de mais seetlu seetlu li ma wax rek ku ci nekk maire ñaari at ñett da ngay gis mu jënd kër gu bees daal di jënd fële terrain am ci marché bi ay cantine jënd oto tàmbalee fontoon nit ñi nag loolu moo tax duñ fa yàgg ku fa def juróomi at gaay dàq la seetloo loolu mais est-ce que kon population bi waruñu gën a dugg ci euh, yorin yi waaw mais dañ ciy dugg mais conseil simple la ñuy doon mënuñu hmm. dañu nekk conseil municipal simple conseil municipal aussi li ci metti mooy da ngay liggéey ba dee amuloo salaire hmm. man daal li ma gisoo euh, def nañu réforme bu solo nag mooy le fait que tête de liste buñ ko xasee xam rek mooy nekk maire pour population kenn du leen war kenn du hmm. leen mais nag état bi na gën a impliqué ci ci ci auditu maire yi. Hmm. waaw da doon jar da doon jar nga créé benn agence d'audit spécial boo xam ne chaque année day auditer maire mais boo xoolee rapport IGE yi wala rapport euh, Cour des comptes yi. Hmm. ñoom bu ñu bu ko génnee boobu ñaari maire ñetti maire lañ ciy xool alors que y' plus de cinq cent maires dañ leen di bàyyi noonu kenn du na hmm. dañ leen gën a topp parce que li fa nekk ci yàq ëpp na. seen émission démb ak tay ngeen di teewlu ci réew mi FM ñuy dalal di Modibo Diop waxtaanee traison ci wàllu politique euh, warante yi ci am ak euh, yeneen mbir yoo xam ni euh, day nekk ci biir te xëy na askan wi duñu ko xam ñu ñëw léegi nag ci tractation yi daan am donte léegi wax nga ko mënatul nekk ndax maire bi dañu koy fal comme ni ñuy falee président ku ñu def tête de liste yow la yow la ñuy def maire donc loolu jeex na mi ngi suñ ginnaaw mais ñu fàttaliku démb tuuti tractation yi daan am. dañ lay def xëy na nga jiite list bi momentanément battre campagne def lépp léegi nag guddi gi wala ci yenn heure yi naka la ñuy duggee di génn xëy na jënd conseil fii kële mën a ñëw ñu dem ba ca ca pàndaw la daal ñu nga yaakaaroon ni xëy yow lañuy àndal war la dem feneen yooyu di xew ci guddi gi wala ci ci ci ci yenn bërëb yi loolu ci mën a wax. non man bu doon sama cas man xamoon nañu mënuñu dem jënd conseil parce que. Eh, boobu nit ñi ànd nañoo man ànd boo xam ne koo fa dem du la du la faane mm-hmm. président bi nga xam ne moo jiite parti bi rek la ñu mënoon waxal kooku ñaan ma man ne ma bàyyil d'accord ma woon sax mais li ma digoon moo tax ma ma ma d'accord mm-hmm. mais ni ñuy ëpp ni ñuy def mooy boo gañee rek conseil ñoom dañuy tàmbalee taxawaan mm-hmm. dugg fii dugg fii dugg fii dugg fii ku ne ñu laaj la dara loolu moom loolu lañ daan def bu njëkk te kat laaj bi kat laaj bi kat boo ko seetee amul sax solo hmm. ndax bàyyi fekk na ñoom ku ci nekk conseil ku ñu nommé conseil municipal amuloo salaire aussi ñoom li ñuy am indemnité yu tuuti nañu am te bëriwul yenn saa yi ñu yóbbu leen benn hôtel ñu daw voté budget bi dem sali voté budget beeg yooyu yenn saa yi maire bi am ñu ci ñu ñu mu kontaan ñoom neexalalee dara mais il faut nit ñi aussi réfléchir hmm. ci conseil bi nan lay am gën a valoriser euh, valoriser fonction conseil municipal bon loolu aussi problème la parce que kii liggéey te kenn du ko fayit bul xam. ba mu toll ak la ko mën a amee rek. Mhm. waaw lu mu am lu mu mën a am ci maire yi dafay vulnérable ci yenn yi. day vulnérable quoi loolu aussi il faut que il ci réforme yi. bu mhm. njëkk yi loolu man dinaa ci dinaa ci dinaa ci xalaat am na lu ma ci xalaat. Mhm. réforme yi ñu war def ñu di valoriser le conseil municipal. c'est-à-dire le conseil municipal plutôt. parce que amuñu dara ñu ci bëri seetlul conseil municipal Sénégal seetlul rek quatre-vingt pour cent ay chômeurs la ñu koñ ba lay nekk di lambar lambari kër gu ne mu dugg fa ngénte lu mu dem dëj bu ne mu dem fa mm-hmm. naan mooy mooy mooy maire ak adjoint maire di lambar lambar lañ fi nekk de. Mm-hmm. boo ne lu muy liggéey di ci ëpp liggéey. Mm-hmm. xam man dama miin dama miin parce que loolu sama sama sama bëgg-bëgg la daal. cest à nekk biir population yi xam nañu nekkee bon yu bari ñoom xamuñu loolu dañu dem toog seen kër. almadi jàpp seen jàmbur faalu ñu réew mi doxee. man dama miin base. ba nga xam ne yooyu dama koy dund mais conseil yi ma xam man ñi ci ëpp amuñu liggéey ay xale quarante cinq ans cinquante ans ba soixante ans dañuy ne ci koñ yi rek mel ni mel ni mel ni mel ni mel ni kii mel ni mel ni njombar bu rek fu ne ñu <laughs> kon daal genre mooy nekk seen traite waaw moom lii seen traite la seen traite nañuy xaar campagne bi ubbi hmm. bu campagne bi ubbee xaalis dina am tuuti yooyu lañuy jël lu ñu def ko ci tamit. Hmm. ndax ki nga xam ne bëgg a mairie moom moom dañ koy nax rek li ci yëpp. Hmm. ndax dañu xam ne yor na xaalis moom boo demee fii te joxe fa lii bu demee fa de joxe fa laa bu demee fa de joxe fa laa nangam nangam moom daal xam naa daal war nañu xoolaat ñun Sénégal dañuy diggante xaalis ak politique niñ koy ni koy doxale hmm. parce que boo xoolee li ma gis war bi njëkk mooy nit nekk ci foo xam ne nit ñi gëm nañ gëmuñu li muy def waaye bu ñëwee indi as tuut ñu ànd ak moom trahison bi njëkk population yi da njëkk a nekk nañu waxante dëgg. Hmm. te loolu moo ëpp te day am fu nekk day am niveau homme politique yi day am niveau imam yi day am niveau chef de quartier yi. Hmm. ki njëkk ñëw lu mu leen jox rek dinañ ko ne ànd nañoo ak moom fekk hmm. seen xol nekkul foof keneen ku ñëw sax loolu lañ lay wax. waaw ku ñëw nga xam boo yoree xaalis di ko séddale moom li naan moom moom toolub toolub joxe xaalis day gaaw a mbooy <laughs> looloo ciy am ndaxte ku ñëw loo leen jox rek ñu ne ah eh, yow de suñu doom nga kii nga juddoo xaw sa maam nangam sa mm. baay nangam a ah, yow de ñun ànd nañoo yow ndax boo yoree maire bi gànnaay koñ bi dana changé. loolu ni day loolu tam day nax om politique yu bari. trahison baa ngoog. Mm-hmm. nga génn wal leen gannaaw sa moon ñëw. ñu waxaat ko loolu fekk seen diggante ñaari wa ñaari ñi leen seet lekk nañ fa loo xam ne topp noo seen dépense weer ci kër ga xam nga yooyu tamit dafa garaaw <laughs> yooyu dafa garaaw day nekk ci nit ñi ñi nga xam ne ñoo lay wax dëgg ne la yow laa àndal muy taw muy naaj muy nawet yow la àndal dañ leen di wàññi de wàññi de kon nag du ñu wax rek homme politique yi mais ñu nit mm-hmm. suñu suñu bopp ñun ñi nga xam ne ay citoyen lañu. Mm-hmm. war nañu xool suñu bopp diggante warante yooyu ak xaalis li mu am li mu am valeur ci politique xam man dama ko dund man dama dëkk commune boo xam ne Fass Colobane Gueule Tapée fii laa juddoo fii laa màggee ba tey maa ngi fii. Mm-hmm. am naa am naa feneen fu ma su ma kër feneen mais ba tey maa ngi ci commune bi dama ko dund ngi fii dox yëpp dama koy xam. parce que man acteur local la mais am na changement yu bari dañu xas homme politique yi ak politiciens yi mais ñoo population yi war nañu xoolaat seen bopp ci seen diggante ak xaalis. Mhm. seen diggante ak seen kàddu. Mhm. bu yu mel ni yegsee. am na solo léegi nag ñu wax ci warante gi am aussi euh, ci biir conseiller muni euh, conseil municipal bi. ndax yenn saay xëy na maire bëgg a def dara euh, ay noonam euh, am xëy na conseiller yu ñu xaw a am lu ñu dikk wala lu ñu digaale ak ñoom ñu ñëw xajamal vote bi yooye duy am yenn saay waaw xam conseil municipal moom li tax sax du ñu mën a juboo ñoom ñoo xam nga boo xasee def maire yi eh, maire bi c'est vrai moom mooy ëpp conseil municipal mais opposition dafa nekk ci maire yi bul fàtte loolu hmm. mairie wala da ngay jël suñu mairie bi dañu naan so comme ñu ne soixante conseil la ñu. Mhm. mën nga ne quarante ñooy nekk ak maire bi mais vingt yëpp ay opposants la ñuy doon. d'accord dañuy dokk parti bi parti bi parti bi c'est normal na ñu ñu euh, xeex ci biir mairie lenn rek moom ma ci soof loolu ñuy jëflante dañ koy génne ci presse bi lool rek moom ma ci soof. Mhm. alors que conseil municipal quand même la fay xew. mënoon mhm. na bañ a génn ci biti ndaxte bu génnee du jëriñ dara day yàq rek. yéen ñëpp li ngeen bëgg a def ndaxte benn conseil municipal boo ci bokkee tamit maire ba échoué loolu nekk nekk opposition xamal na ci échec boobu ca nga bokk. Mhm. mel ni benn gouvernement boo ci nekkee mooy échoué nga génn xeex président bi comme li xew léegi te lay wóor ne it mënoo fi jaar fenn ba set ndax yaa nga ca woon. Mhm. xam nga léegi boo seetloo ku ñu dàq ci gouvernement rek. waaw ay ancien ministre ancien premier ministre nga gis ñu def nekk opposant mhm. <laughs> comme <laughs> conseil municipal bi même chose dañu ne ci biir nekk opposition wax maire bi lu bon wala gis ci moom ay faute mhm. génne ko teg ko ci presse bi jaay ko mel ni nekkuñu fi mais bu ñu yeggee élection yéen ñëpp dañu fiy jële alors tey lan nga jàpp nii moom la population yi war a indi euh, comme contribution ci gestion collectivité yi euh, wala naka lañ leen si war a gën a dugalee am na ñu bëri ñu fi doon euh, prôné peut-être gestion inclusive askan yi buñ gënee dugg ci ni ñuy yoree seen gox yi xëy na dina am coppite yu mu indi yaakaar nga ni tey loolu lu lu askan wi mën a am la comme taxawaay waaw loolu déjà defe naa première forme bi fi mu feeñee mooy mooy ci wàllu ni ñu élire maire comme maire bi moom euh, élection bi ñu élire président lañ koy élire mm. kooku dootul dof léegi day xam ne bu jëlul ñi nga xam ne ñoom la population bi wóolu teg leen ci liste yi du am dara. Mm, kon changement bi am dina provoqué. loolu changement bi dina indi loolu. d'accord ndax tey boo xoolee liste nga ne waa man Fatou Thiam moom mu ngi dëkk ba asile mu ngi Colobane liste bi moom du ma ko mm. ñoom nag dofuñu dinañ léegi. da ngay obligé jëli ñi nga xam ne dañu am représentation ci quartier bi. Hmm. bu dee comme Colobane ci marché bi. Hmm. bu dee par exemple fu mel ni ay ay Tamba ñi nga xam ne ñoo nekk ci agriculture bu dee Kédougou ñi nga xam ne ñoo nekk ci mine yi nga dugal leen sa liste loolu nag du yomb am na ñoo xam ne ils sont apolitiques. Hmm. mais buñ la wóoloo nangu nañu nangu nañu dugg ci liste parce que yi day bari da ngay gis liste boo xam ne presque nekk xam nga jëli sant personnes nga jëlee ko yombul bu njëkk nag da ngay jël liste dugal ay hommes rek ñoo xam ne ci parti la ñu bokk. daaw xam nga ne sa parti dina gagné mais léegi population yi dañuy bàyyi xel ñan ñoo nekk ci liste yi kuy tedd liste bi ak biir liste bi est que am na man jaaykatu caaf laa est-ce que am na koo xam ne commerçant la mi ngi ci liste bi. Mhm. man maa ngi ci benn quartier damay liggéey ci damay damay def affaire ASC est-ce am na ku nekk ci ASC bi ku nekk ci liste parce que mhm. ASC yi bu nekkee ci liste peut-être conseil bu demee dina wax waxu ASC. ASC waaw peut être kii bu nekkee commerçant bu demee peut être dina wax waxu commerçant. Mhm. mais bu ñu leen bàyyee ñoom rek ak seen parti politique yu ñàkk xorom yi. da gis koo xam ne moom bi mu juddoo ba tey laa gis Sénégal koo xam ne bi mu juddoo ba tey mi ngi politique musul am place. Hmm. day ne rek tey mu nga Géejawaay suba mu nga Pikine bu ñu wax mu naan affaire parti bi parti bi ma ne waa kii du muy liggéey. <laughs> loolu rek lay def. Hmm. ñooñu boo leen digalee ci ay liste parce que parti la ñu bokk. mais loolu loolu kooku amuñu benn yitte ci population yi. Mhm. foofu sax laay jaare interpeller la ci euh, benn euh, seetlu bu ñu am mooy tey ay jeunes cadres ñoo xam ne mhm. jàng nañu ñenn ñi nekkoon bitim réew di liggéey ñëw di yuutu mhm. gox-goxaat yi. boobu changement waaw noo ko ko gisee tey. non loolu benn volonté bu bees la. Hmm. dama koy saluer mais ak a jafe. ah kon ñooñu yaakaaroo tey élection yi. du am pour man. Euh, xam ba fu muy mujjee dina ma mais ñi ma dégg ñu jógee bitim réew wala nekk ay société civile ñëw ci ñëw ne dañuy def élection. Hmm. pour man seen jàll du yomb du am parce lu tax. Hmm. mairie du loolu mairie dëkk ci gox la amal leen njëriñ ba ñu ràññee la mooy tax ñu ñu dugal la ci mairie. te loolu politique yi ñoo ci ëpp chance. politique voilà mooy xam def naa ci débat di wax ne ñoom jóg nañu def loolu gis naa ay acteurs société civile yu bari yaa ah, ñoo xam ne c'est hmm. na ma bu ñu yeggee ci pàndaw gaay gaay gaay bàcc leen du jàmm dara du cëpp boobu. askan wee leen di war wala. non askan dañ leen dañ leen dul xam yenn say am hmm. xam nga man ma ne diw laa tudd rek jóge France ne way politiciens yi ñu réew mi sàcc lañu fenkat lañu fa ma dëkk damay France laa jóge damay ñëw liggéey Sénégal. waaye fii laa cosaanoo Sénégal ci benn dëkk mais gars xamuñu la. boo ñëwee sa costume yu France yu màgget yooyu ngay sol ñoom dañ laa faale. <laughs> ñoom faale wuñ la ñoom ki nekk ñoom di ngénte ak ñoom di dëj ak ñoom di añ ak ñoom di tëdd ñoom di màggal ak ñoom. Hmm. di gàmm ñoom kooku la ñu xam. kon élection locale loolu la. élection locale loolu locale du question ay dama am xam-xam ak gis ko kii conseil ministre bi ak yi maire dañu am xam seen jàng demewul fenn. Hmm. waaye dañuy yàgg politique. Hmm. dañuy yàgg ci kon daal élection locale moom yëfu politique la. moom moom moom moom xam politique ci sensu Euh, nekk nit ñi la. Hmm. waxuma politique nii rek politique ci kaw mais politique ci sens u jege nit ñi. d'accord xam seen famille parce que am yoo xam ne man par exemple boo ñëwee Colobane fii am na kër yoo boo fa duggee mais ñooñu samay wëllëre maam seen ak maam ak samay maam dafa wëllërante bu ma soxlaa ñoom ku ko dugg ñàkk. Hmm. ndax dëkku lébu la lébu yi dañuy doxe noonu. Hmm. am ñoo xam ne eh, ñoo bokk tarixa Eh, seen sëriñ sama nangam la boo demee ci ñoom doo am dara ba dañ naan ah, kooku suñu mbokk taalibe la fu mu jublu nag ñeme nañu lu dëgg. Mm-hmm. non élection locale réalité yooyu la ñi jógee bitim réew ak ay haut cadre yow dañuy yeewu dañu bëgg nekk maire billaay ñu ci bari gars yi dañ leen bàcc ba ñu tëdd maa la ko wax <laughs> naan ko ci benn débat bu ñu doon def suñu réunion yooyu mercredi yooyu ma ne leen <laughs> bàyyi leen ba ngeen dem di ngeen xam ne affaire bi yombul. Mm. li ci bari. fii la ñuy jógee loolu ñoo xam ci affaire élection maa la ko wax. ñu génn ci. te génn ñu ba seet si wécc daal dañu naan yee ñun xamuñu Sénégal muy bokk rek. Hmm. damay wax toujours Sénégal base yi dañuy am logiciel xam nga logiciel comme ordinateur ni muy amee logiciel bi ko taal. Hmm. noon la quartier yi commune yi di amee logiciel noon la réew di amee logiciel. boo ko mënul boo xamoon code bi koy taal. Hmm. da ko yàgg de machine bi du <laughs> <laughs> dara du tàkk alors ñu ñëwaat ci euh, coalition présidentielle bi benn Bokk Yaakaar tey ban ëllëg nga ko gisal ginnaaw ginnaaw élection yi ndax itam am nañu mer ci suuf waxaguñu dara yaakaaroon ni xëy na ñu bari dëgëranteeg président bopp ba coalition bi jaaree fi toj. non non man pour man damay wax damay wax Macky Sall dama leen wax tuuti Macky Sall yéen da ngeen koy xool nii rek mais kii moo dàq politique ñi fi jaar. Hmm. ay coalition boo xam ne lu mat junniy parti ci nekk nga yore ko lu mat juróom-ñetti at tasu tasul ba tey kooku man affaire moo tax nga mën ko man koy wax toujours sama mbokk PDS ma nañu man leen Macky Sall ni politique daf ko mën ndax jàng na ko fu mu ko war a jànge ànd ak Ablaye Wade xam na li Ablaye Wade def comme erreur du koy moytu hmm. te ingénieur xam ingénieur dafa doy waar ndax tekk bu mu teg bu koy tegg dina xam fu mu koy tegaat hmm. waaw coalition bi pour man moo sa tas benn bokk yaakaar day yaatu comme ni réew mi duggee mais yaakaaruma Macky Sall def erreur bu ko tas. ah waaw waaw gis nañ dina am nag benn benn yu génn yu mer. Hmm. mais day fekk aussi bu ñu génnee mer du am solo. ah kon risque yooyu da koy xam jël ko. pour man dina dina xam dina xam pour ni ma ko gisee. Hmm. waxtaanuñ ci mais xam naa ne. ni mu contenir coalition bi huit ans loolu loolu loolu mën affaire mooy tax na man. waa te PS ñu bari dañu yaakaaroon ne dañuy dem ndax dégg nañ fi déposé nañu caution ña ngay lii ña ngay lee waaye ñi yaakaaroon nañu def buru yëpp finalement dañu ne teg mujjee kon kon nga xam ne Fatou li ma lay wax dëgg la hmm. ndax parti yu toll noonu PS tey ni mu toll ci doole hmm. ay PS tey jii mën nga ne ci parti ëppoon doole ci Sénégal la waaw bu demee élection présidentielle tegul candidat xam nga ka jaar foofu kooku ku ndaw hmm. ah AFP loo mën di waxee Moussa Niass ba tey am na doole ndax am na lu mu tekk ci réew mi Moustapha Niass nit ñi xamuñu ko mais Moustapha Niass moo gën a xam Sénégal ku xam Sénégal fii Macky saal xam na Sénégal bu baax mais Moustapha Niass dafa xam Sénégal. Hmm? bu baax a baax ah koo xam ne depuis yaa ngi fi. Hmm, hmm. ku ne jëflante nga ak moom. Ah, waaw boo demee ba moom bu fekkee élection présidentielle du teg sa gannaaw lay topp. ñeneen ñeneen noonu kon xam ne Macky Sall li muy def xam na ko. muy def xam na ko pour man coalition bi du mës a tas day gën a am doole pour man loolu laa gis ñi génn dem yëpp bon. mooy dañuy def erreur parce que euh, damay nekk maire rek nekkuma ko taxul nga génn ci coalition ndax dem gañe bi mooy jafe dem gañe bi dafa dafa jafe loolu ñu ko fi réussir bariwul ci histoire Sénégal moo ñoon jaañ fada daal laa gisoon mu def ko fi ak waar wi ak waa bi mais gisuma ñu bari ñu ko def man du moins li ma observé dix ans yi mm-hmm. mais bi bi élection yi di ñëw dañu dañu xool mais fada moom da ko réussiroon dafa génn dem am li muy am waaw dellusiwaat Abdoulaye dellu soo non Abdoulaye moo ko dellu soo Abdoulaye day xam ne kii niñ ko waxoon du dëgg xam nga Abdoulaye noonu la meloon nag moom it mm. moom bu demee xam ne ne juum na day dellu siwaat réeram rectifier mm-hmm. mu xam ne dafa juum ci xalaat yi mu jëlaat ko nekk ci yoonam d'accord mais c'est rare nga génn gagné c'est très rare ak jafe d'accord ñu jeexal mm-hmm. jafe na de d' accord dinañu ci xam dara élection yi. waaw waaw moom kay man man fi mu ne analysé naa yëpp ah dama yore sama benn carnet parce que ci commune yëpp. Hmm. noté ci département yi nga xam ne gis naa ko analyse teg ko. kon kon yaa ngi def sa genre sondage yow tamit. waaw sama genre sondage ba nag toog di xaar le 23 le 20 au janvier. Euh, kan fu mu jëm mën na am aussi juum naa sama analyse. juum hmm. naa sama gis-gis. Hmm. mais li ma ci jot a jàngat. li ci ëpp boo ko xoolee bu fa yeggee fa ngeen fa ngeen jëm ko parce que aussi xam nga ak expérience bi tamit dangay am benn recul bu lay tax nga mën a nga mën a nga mën a xool ne fii la jëm lii fii la jëm lii fii mm-hmm. bi tey da nga gis ne kon chance am gañe bariwul. non yee ñoom erreur yu bari lañ def. day mm. day ñoom ñoom ñoom man heureusement bennoo laa bokk waaye moom bokkoon ci ñoom dinaa la yee lii ndax da ngay gis benn commune. Mm-hmm. nga wóor ne la commune bi bennoo mi ngi fi am na doole. diw mi ngi fi am doole diw mi ngi fi am doole opposition bi tëb ñoo ñëpp parti bu ne monté sa kan <laughs> du ñu am dara parce que parce que li ci am mooy mhm. bi tey par exemple opposant premier Sénégal tey Ousmane la mhm. mais euh, doole Ousmane mhm. li muy bari bari bari pour nga wàccee ko ci ci ci benn nit ci base bi yombul moo tax yenn saa yi da ngay bàyyi yow ki nga xam ne moom nga yaakaar moom la nekkal nga uti xam ne quartier bi miin nañ ko. Mhm. bu ñu ne ànd nañoo ak moom rek mu taxaw. d'accord bon euh, yu mel noonu la ñuy def heureusement heureusement heureusement sur Dakar. Mhm. ñu parce que dégg naa ak Barthélémy la ñu la ñu jiital. Mhm. alors que moom moo ci nekk ci gën a représentatif côté côté côté visibilité politique. bu ñu dugaloon keneen rek dina indi. def erreur loolu nag taxu ko gagné mais may na ko chance yu bari. parce que tey moom moo nekkoon à côté de Khalifa défendre ko. moom moo jël une yi moom moo gagné loolu aussi boo xoolee Macky defaat na ko parce que tey bu ñu jëlee Diouf Sarr def ko Dakar mm-hmm. c' est très normal waaw Diouf a une mairie gagné na ko ba nga xam ne mm-hmm. yombul mm-hmm. am na représentant du gouvernemental te lébu la tamit boole ci waaw donc le choix est très bon donc ñaari candidat lañu yoo xam ne seen seen dina metti heureusement foofu yoonu euh, Benno juumu fa yow yow bu askan wi tamit juumuñu fa mm-hmm. mais sinon opposition bi dañu def erreur yu bari ci ay commune yu bari bari bari koo xam ne te ñu taxawoon bu ñu toppoon ko gën a dëgër rek topp ci mm-hmm. ginnaawam rek dañu dañ koy gagné mais xam nga gars yi dañu nekk xale yi bëgg nekk maire tout de suite kenn xamu leen ñu bëgg a mm-hmm. nekk maire xam nga yooyu mooy problème loolooy problème bi alors euh, Modibo Diop ñu jeexal ak euh, li nga xam ni moom laa junju keroog ak maître Cheikh Tidiane Touré ñu koy nuyu au passage muy affaire fichier ñu bari dañuy wax ne dañuy sàcc élection yi ñeneen di wax ne sàcc élection Sénégal mënatul nekk euh, yenn dañuy remettre en cause yenn euh, victoire yi mu mel ni par exemple euh, élection yi ñu weesu loolu tey yow loo ñu ci mën a wax en tant que homme politique man li ma mën a wax mooy sàcc élection moom sàcc élection moom jeex na Sénégal Hmm. loolu moom loolu moom ku ko wax dañ laa mbéj mbéju gémmiñ nga yeewu xamoo foofu hmm. la tóor kan dañ laa sàcc waaye sàcc moom loolu moom jeex na Sénégal maintenant nag dafa am benn benn élément boo xam ne man sama constat en tant qu'acteur politique hmm. mooy fichier yi la la opposition bi dul bàyyi xel trop ak pouvoir il faut il faudrait que ñoom ñuy toog bi gën a xool fichier parce que fichier yi day bari ay changement comme nit ñu deeñi nit ñu feebar yi woteetuñu nit ñu toxu yi yooyu gars yi duñ ci bàyyi xel bu baax. parce que benn commune doone kenn deew fa juróomi at. Mhm. mais man mosuma gis ñu rajo man sama commune bi mosuma fee gis radiation. ok yooyu tamit problème la. dëgg la kon il faut que ñoom nit ñi bu ñu génnee ci ñu gën a travailler ci ci réalité fichier bi. c' est vrai kooku ki ñu raj ki ñu rajewul du vote ki dee xam nga du vote. Mhm. bon tamit kenn kenn mënul kenn mënul sàcc votam. Mhm. mais doo am réalité fichier bi te réalité fichier bi mooy tax nga am nombre de conseils municipaux par une commune bu am tant d'électeurs tant de ah. conseils municipaux lay am. léegi bu ñu jëlee ñi dee dugal leen. Hmm. kon ñi am conseil municipal représenté wu réalité bi. waaw maanaam li ma gis il faudrait que euh, euh, mu am réforme boo xam ne sama xalaat la. Hmm. bu ñu bëggee améliorer décentralisation. Hmm. que les fichiers au niveau national c'est vrai. am na compilé nañ ko parce que mën nañu ay six sept millions. mais que ñu gën a retravailler les fichiers au niveau communal. pour rek régler problème yooyu. Hmm. ku décédé xam nañ ko ci carte bi ndaxte certificat de certificat de de daanaka maire ñoo koy defar. Hmm. kooku bu ñu dajalee certificat de décès pendant cinq ans. Hmm. nañu mën a wax préfet bi ne ko ah suñu commune bi de nangami nit faatu nañ fi. nañ leen génn ci fichier bi ndax faatu nañu seen certificat de mort yëpp taxaw na. ñu am une ban je je je prête pour une réalité une réalité du fichier. un fichier ko defee ci téeméer commune ak juróom yi taw yi. cinq am yëpp. dinañ am au niveau national un fichier boo xam ne il représente mhm. vraiment les Sénégalais qui qui votent dans une man daal foofu rek laa gis tuuti problème. jafe il faut réfléchir. jërëjëf euh, fi la ñu yemale waxtaan wi itam euh, Modibo Diop ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon mbégte dalal la ci waxtaan wi démb ak tey doon waxtaanee wàllu traison ci politique warante gi nga wax ne mën na jóge aussi bien ci homme politique yi que ci askan wi waxtaan wi itam leeral na loolu ndax mbir yu bari mooy xew ay euh, kon manigance moo ko mën a noonu wala manipulation yu doy waar en tout cas ci biir politique bi rawatina ak nag élection locale yi amoon nañu mbégte en tout cas waxtaan ak yow ci lii yëpp di la gërëm bu baax a baax merci jërëjëf Modibo Diop la ñu doon dalal mu nekkoon maire Gueule Tapée Fass Colobane euh, nekkoon suñu gan ci démb ak tey émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu ngi leen di jox dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen gërëm jaawo jàllo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu yendoog jàmm